accident ëllëg ñu jël la en charge mais yow da ngay am accident amuloo kenn ku la jël en charge yow nga nekk ci problème war a faju dootoo liggéey muy benn war a fay ordonnance war a dundal sa njaboot foo koy defee te mënatoo dawal te boo amee loolu mun nga am loolu am assurance organisation moo ñu koy may bu ñu organiser boo leen doon def ci jakarta bu nekk cent franc mun nañu am assurance boo xam ne mun na leen dimbali. ku ci accidenté ñu jël sa famille en charge ñaar fukki dërëm bu leen ko xet boo jëlee à mille 1000 jakarta boo jëlee 1000 jakarta ngeen def joxe cent mille francs par weer ah ngeen joxe 100000 ça fait lan ñaata ça fait 300000 300000 assurance boo ne naa jox 300000 francs par weer mu daw ba dee assurance bu ne assurance civile la loolu dawa dama ngeen xalaat ci. du loo xam ne man maa koy def da ngeen koy dajale ne gaañ d'accord nañ ci nangam mu wut assurance boo xam ne day ñëw taxaw ne naa leen di ñëpp naa leen jël en charge ñu defam ak partenariat bu fekkee defee bu fekkee cent franc la ñu war a fay maire bi ne man danaa fay cinquante franc yéen ngeen fay cinquante franc parce que bu boobaa ñun nañ ci dugal suñu loxo parce que boobaa dañ leen di garanti ndax bu ñeen leen ngeen dem booy jógal leen sama kanam eh avancé na sama laay waxal dama leen bëgg a gis pas seen caméra yi voilà seen caméra yi ngeen yéen a ngi dégg li mu wax ñi may wax dama leen bëgg gis di leen xool di leen xool ñu may xool parce damaa gëm li may wax dama gëm ni lu mën a nekk la te li may wax seen njariñ la faju war ngeen ko mun def fii am na mutuelle de santé mutuelle de santé état dafa leen di financé ne kenn koo xam ne boo fayee trois mille cinq cent defe naa ñu jël la jël en charge sa njaboot mun nga feebar ñu jël en charge yow jël sa ñeenti ñeenti ñoo xam ne ñu ngi sa sa biir kër ci trois boo amee ordonnance nga fay gennewaal ordonnance bi la moo leen tere bokk amu ci kenn ci ko bokk ci mutuelle da ngeen koy dama seen yoon nekku si gëmu ko mais seen njariñ la te yéen a ko moom te da ko fi bàyyi dem mais jëli leen ko dafa ne am ay problème yoo xam ni il ñu ko di ko topp moo tax damay laal d'abord fi métti ba pare doo nga ñëw ci li ñuy wax assurance bi bokk na ci santé bi ci la bokk assurance bi accident yi ci la bokk ñaar yooyu mooy ñett yi déjà bi ñu def nag léegi mooy organisation dëkk bi ñoo ne wax na dëgg ñoom ñoo jënd seen échantillon jox ma ñoo jënd seen casque jox ma jënd seen gant jox ma ah jënd seen barge jox ma joxe naa ko man tamit man ba ngeen ma ko joxee laa joxe commencé defarlu parce que man luñ ma jox pour organisation damay fexe ba matériel bi yëpp nekk sama loxo ba pare may doo ko woote ndax fii bu njëkk ba dañ daan am plaque am na am na ñoo xam ne dañ daan dem perception jënd plaque mais est-ce que fii gis ngeen jakarta bu tax bu yor plaque ah am na ñu am plaque waaw mais bariwul de mais am na ba tey d'accord na nangu na mais am nu ñu am plaque mais am nu ñu amul plaque. ba ma ñëw fa maa ngi ñëw foofu voilà moom la c'est-à-dire li tax ngeen jënd plaque. balaa ngeen ko jëndal rek gàmmu dafa jot bu gàmmu jotul kenn si seen du jënd plaque wante bu gàmmu jotee ñëppay daw wuti plaque voilà man nag damaa bëgg ngeen ne premier janvier bu jotee nañu am suñu plaque parce que loolu mooy yoon plaque bi da ko war a am engin bi dafa war a am plaque ñu am identification moo tax ma ne plaque bi ak dossard bi ñooy bokk numéro plaque yi ñuy defar actuellement ak dossard yi nit yi sol ñooy bokk benn numéro. ça veut dire que tey yow boo amee sa jakarta bu plage bi nekkee 707 yow sa dafa nekk 800 am na lu jaaduwul ndax plaque bi ak dosaar bi ñoo ànd loolu d'abord loolu day permettre aussi ëllëg képp koo xam ne nga def ñombe wala nga def lu dul noonu même boo dawee sa rek sa dosaar dina la feeñ donc loolu dafa am importance ku bëgg a def nag lu dul noonu nag bu neexee nga dëpp ko boo boobaa ñoo xam ne yow lu dëng ngay wuti loolu kooku dafay leeral nit ñi ci yow ca la nga jëm ndax ki am na ñoo xam ne lu baax la ñuy wuti am ñoo xam ne dañuy wuti du lu baax mais jarta tudd donc loolu la ñu bëgg a def defar plan yoo xam ne dafa ànd ak seedi dosa beneen bi ñu def man dama mës kaas ne koo xamee ni jakartaa nga te dëkkuloo fi d'accord ma bu gàmmu jotee nga ñëw fi je suis pas d'accord te dama ko yàgg kaas dañuy daan dem réunion nationale ma koy kaas naan jakartaay du ñu dugg ci dëkk bi boo leen seetloo borom jakartaay yi nga xam ne dëkkuñu fi bu gàmmu jotee dañ leen di ngeen ko ba tàyyi boo leen gisee tamit bu gàmmu jotee daaw mooy indi beneen bu bees mooy lan mooy jakartaa bu nekk da nga ànd ak bracelet ñi ñu ñëpp ñu nekk jour ñëpp dañu nekk am bracelet mais pourquoi ngeen di xaar ba gàmmu jot pour ngeen koy def parce que bu gàmmu jotee dañ lay taxé c'est-à-dire 3000 bi nga war a fay da nga koy fay mais dañ lay ciy dolli 14000 francs loolu moo doon indi coow bu bari bi ñu naan arrangé nañ arrangé mais mooy li ñu wax rek mooy cent francs par jour bi kenn ku nekk war na koo mën ndax kenn ku ci nekk booy wàcc lu mu dee dee dee di nga wàccee xanaa 1000 francs par jour voilà 1000 francs ñaar fukk mën na cee génn gaay bu dee dañu waxante dëgg rek les mu romb ko mais man ci 1000 laa yem rek 1000 boobu wutal leen ko boîte condamné. chaque jour ngeen tëmal ma ci ñaar fukk mën naa nekk boo boite ko naa ne bu baax bu banta ngeen di wut chaque weer nga rek nga daaj ko dem fay dimbali leen ma ñaar fukki dërëm rek la loolu boo na ko defee daf may noppal xam nga lu parce que balaa gaa jot dinaa fexe jakarta maan bu nekk am carte est-ce a ngi dégg na wax jakarta maan bu nekk am carte gis nga sa carte boobu balaa gaa jot bu ñu xoolee carte bi ne yow fay nga janvier ba jamono yi ci truc dañ la koy tamponner jox la benn tur gis nga bu heure heure liggéey jotee kenn du la arrêté yéen xam nga ni woon ndax la daan demee xam nga ni naa daan boo ñëwee ba tolloo gars yi rek nga yëkkati sa loxo boo yëkkati sa loxo rek ñu la jàll parce que kenn du la contrôlé waat parce que xam nañ yow toi tu es à jour donc loolu dama bëgg d'abord ñun ñoo ko instituer suñu bopp ñun ñoo koy nangul suñu bopp dañu bëgg rek ñu organiser liggéey bi maire bi xaalis bi du xaalis jakarta du ko du ko arrangé du ko arrangé wante dana ko dimbale parce que li ñuy wax rek recette bu nekk rek am na am na lu mun a fàtt loolu mu mun a fàtt nag ci loolu lañ leen di woo dañu bëgg rek ngeen organiser actuellement boo leen seetloo ni ñuy def maa ngi ubbi dëkk bi nu ma mën foo leen tourné rek ñu ne Diop a ngi defar tali xam nga lan la ma nit di tuddee Diop tali fu ma nekk damay rek maa ngi defar tali mais tali yi may defar mais yàlla xam na ni bu bu may xalaat ñi liggéey xa tax may wax parce que yéen ñii liggéey nit ñi fa ñu dëkk boo ko defaree tali boo liggéey bu ñëw dana saw ne mën a am jakarta wala am na jakarta bu fa dëkk boo xam ne bu dem sa suba mu yóbbaale ko donc chaque jour kenn ku nekk yokk nañu seen assiette de liggéey cest à boo doon liggéey ci benn rayon wu vingt vingt mètres bu ñu commencé def assiette yi yaa ngi ci rayon wu cent mètres wala deux cent mètres kon yokkute am na yokkute boobu nag da ngeen koy da ngeen koy dangeen ngeen koy utiliser mais nañ ko organiser loolu moo indi réunion bi parce que damay bañ tali yi ñu ngi ñëwaat bu ñu ko defee ba pare mu nekk beneen bi ci des. am na loo xam ni moom dama leen koy demandé xam ngeen dañuy tere dawal jakarta guddi mais fii fowukaay lañ ko def dañu koy def fowukaay war war leen ko def fowukaay nit ki li koy jox teraangaam du ko fooye xaar ba xaaja guddi nga ubbi sa moto di ratatat defe na yow yaa ngi si ngóora yaa ngi def musiba fi ngay yaakaare ni oto nekku fa oto oto mel na ni yow daw ñëw dal sa kaw jël sa bakken bu boobaa yaa perte ban njëriñ la am bu ñu sañoon kenn du dee bu ñu sañoon kenn du dam bu ñu sañoon kenn du gaañu mais kon ñun on est obligé ñu wax ak yéen te fii dafa bari accident Jakarta fi ñu toll nii semaine yee passé ci benn semaine rek liñ ci am ci accident Jakarta tere nañoo nelaw parce que day nekk ñoo xam ne soit nga xam leen soit ñu xam ne ñoo ko say njaboot day ànd wala say njaboot xam leen. te loolu loolu dafa métti ci xol xale bu gaañu moo gën a métti ci àddina mag mu dee sax dañaan def na dara mais xale bu defagul dara amul jabar amul doom xëy sa ba dee loolu musiba la dimbali leen ñu laa rasul yi loolu dañ koy saraxu bàyyi leen guddi yi ngeen di fërërër yi mel ni comme da ngeen di concours loolu ngeen di carte carte ngeen di def da di carte maa leen ko dàq fuuf loo leen def xam naa da ngeen di carte carte boobu amul njëriñ parce que liggéey ba ngoon jot damay bëgg dama damay wax lu leer da ngeen a liggéey ba ngoon jot ngeen teg ay 500 500 ne léegi ku gën a gaaw wala ku jaar xawma ma xaw ma ndax la gars yi tuddee ah. njëgi siraat yéen fa ngeen demee deer dafa jot ba ngeen di jéggi siraat ku leen ko sant ku leen sant jéggi siraat ñun ñu ngi ci àddina bi ngeen dox siraat dañoo bëgg ngeen toog àddina ngeen bàyyi àllaaxira àllaaxira ña fa ne kenn ñëw yéen a ngi dégg li may wax. non daa bëgg man seen papa laa dama bëgg ngeen déglu ma bu baax man li ma leen wax dama leen raay man si digg bi laay jaar dama bëgg ngeen bàyyi jéggi siraat ñun demuñu fenn bay siraat siraat <laughs> duñ ko waxtaanee sax ba di fa dem yéen a ngeen di jéggi siraat mooy leen fay téeméer téeméer carte boo amul njëriñ xam ngeen boo leen bëggee carte noo def jëlal téeméer bi denc ko gañe nga téeméer bu subaa boo wéer a carte nga gàdduwaat téeméer gañewaat nga téeméer boo laa weer wi dee di nga jaar di gañe quinze millions boobu ak sa jàmm moo fa doole nga jëm di jéggi siraat gaañu man jëriñ la am vraiment dama bëgg rek ñu delloo siwaat xel yi dama bëgg dawal ñu delloo siwaat xel yi xel yi waxuma xol yi xol yi teg la ko suuf na ngeen delloo siwaat xel yi di réfléchir maa ngeen jàpp ni dëkk bi ngeen yoon dëkku diine la dëkk bi dafa am aal aalu dëkk bi laa la ñu bëgg ngeen nekk ci aalu dëkk bi c'est-à-dire di dawal dawal bu rafet di dawal dawal bu tegginu di def ndànk li sëñ Fallou daan wax jàpp bu dëgër raam ndànk lu ne tikk nga ne tekk bu mu wëy nga ne yool loolu ñëpp nañ ko te du tee da nga àgg fa nga jëm kon loolu lañu ñu ngeen def dañ leen ci woo nag organisation bi moom à partir de suba lay commencé Abdoulaye ngi nii damaa jël artisan yi nekk ci dëkk bi ma ne leen kenn du fi demaat Thiès di fi defaree plaque fii lañ koy defaree kenn du dem Thiès di fa defaree gilet fii lañ koy defaree. gilet yi ak casque yi fii lañ koy defaree léegi waa Tivaouane ñoo ko defaree rassemble parce que dëkk bi ñu nekk bu ñu bëggee dëkk bi liggéey développé lépp loo xam ne waa dëkk bi mën nañ ko dañ koy jox waa dëkk bi ñu liggéey ko mais waa dëkk boobu mun dara ngay dem di ko jéegaane feneen man Diop du ma ko def lu waa dëkk bi mën moom laay def vraiment loolu bëgg naa ngeen def ko arrêt yi tamit jox ngeen ma ay ay ay place d'arrêt tey jii seen arrêt yi fu mu tawee ngeen làqatu wala ngeen dugg ci biir dugub waaw ma ne pour lan arrêt yi arrêt dañ koy wutal mbaar wala ñu wutal ko espace boo xam ne boo la ñoo xam ne fii arrêt la si autorisé am na ay arrêt yu ñu ma jox ba pare danañu génn arrêté bi parce que yéen a ko wax waa sëñ bi bàyyi téléphone bi àndul ak réunion yaa ngi dégg arrêt yi arrêt bu nekk daañ ko wutal place ak espace autorisé la espace boo xam ni da ngeen fay toog bu tawee di ngeen mën a toog si biir bu na di ngeen xam ndax ngeen di def mais muy taw ngeen di daw di làq ci kenn ko waaw dama dama bëgg nga sëñ bi la na patron ma mbaar bi mbaaru meere la du du mbaare aare bi dégg nga dañ génnee voilà bàyyi rek man mun naa déglu ma leen may déglu leen ma <laughs> bàyyi rek day yàq sama day ñëw waaw waaw fa laa leen rek may la ma tuuti rek gars yi may la ma tuuti rek boo leen may tuuti rek li ñu bëgg nañ ko am te kenn du sonn léegi li ma bëgg mooy d'abord paiement bi laa bëgg d'abord ngeen instauré ko cest à am na ñoo xam ne ñi ngi dem di fay te kenn waxu leen dem leen fay saabu veut dire que ñoom ñi ngi nekk à jour loolu dafa am importance ci li ñuy def am na ñoo xam ne ñu ngi dem di fay am na ñoo xam ni balaa ñoo fay rek gàmmu na dafa jot